ni ñoo bokk ci mouvement bi mouvement bi nag mi ngi tudd mouvement pour le développement et social sàmm li nu bokk waaw noonu la mouvement bi tudd waaw. lu tax ngeen euh, mouvement bi mouvement bi famille nag biñ ko taxawalee xaw na amub diir xaj ne yëngu bi la ñuy doog a tàmbali nii te it maanaam famille si ñoo ko composé maay ñi mooy ñi nga xamante ni ñoo nekk ci bopp bi waaye mouvement bi moom yaatu na maanaam dépassé na sax Touba. dem na ba Sénégal dem na ba sax bi bitim réew ndaxte bi ñu koy taxawal am na ñu ñokk bokkool jokkool ñu nekk bitim réew ba ñu jox ñu seen kàddu wax ne wax ñu ne danañ ñu nekkal foofa kon mouvement bi moom famille si famille yëpp nag mi ngi ci famille sëñ Malick Basine si famille sëñ Ndiaga si ak famille Mbackeek ñëpp maanaam ñu ngi ci mouvement bi ak ak waa ñu baree bari daal am gox yu baree bari bokk nañ ci mouvement bi mouvement bi noonu la tëddee daal génn na Sénégal daal du Touba rek daal. waaw dañoo xamante ni nii développement mooy li nga xamante ni nii ci la am réew mën a mën a tënku ndaxte développement bu amut daanaka réew mi du mën a dem te gis nañ ne réew mi yu baree bari mi ngi xaw a sooxe te ñi ko ñi ko war a doxal xañ na dañ ko mënta doxal ni ñu ko war a doxale moo tax ñu bëgg nag léegi taxawal mouvement bi pour ñun mën a engagé wu ci ci ci ci fànn googu moo tax daal ñu taxawal mouvement bi daal. waa am na lu bare bari loo xamante ni sooxe na xaj na am na loo xamante ni nii mi ngi dem waaye am na yoo xamante ni sooxe na muy ci wàllu sécurité bi am na ci ci sooxe ndaxte ku ne xam na ne nii euh, année bi ñu nekk nii li fi faatu ci ay nit ci ay agression bari na gis nañ ne maanaam sécurité bi daal xaw naa manqué gis nañ ne wàllu santé bi xaw naa am ay jafe-jafe rawatina fii ci Touba ndax ku ne xam ne Touba ni mu màggeek ni mu toll benn benn hôpital rek am fi loolu xam nga sooxe sooxe la ak yeneen yu bare bari daal yoo xamante ni nii xaj na bu ñu demee ba ci kanam dinañ ko mën a développer daal waaye pour l'instant moom ginnaaw lii dañuy tënk rek di lancer mouvement bi li ko tax a jóg foofu lañ ci xaw a kii daal. social bi muy dimbalante dafa tumurànke ci jamono ji wala waaw daf fee tumurànke bu baax a baax ndox social dimbalante dafa nekkul ne rek ci koom-koom la waaye dimbalante ci wàllu xel dimbalante ci wàllu di dox mbokk dimbalante ci ci ci ci maanaam nit ki nekk ci lu mu war a nekk. nga ñëw ne ko lii nga nekk nangam nangam yooyu yëpp dañoo gis ne dafa tumuranke te mag ñi maanaam defaroon nañ ko ba mu baax ñu bàyyi ko fi waaye gis nañ ne yooyu léegi dafay sàggane bu dee ci mbokk gi bu dee ci réew mi bu dee ci diggante état ak nit ñi yooyu yëpp daal am na ay jafe moo tax ñun ñu taxawal lii ngir dalaan dañ dañ ci yëngu daal. waaw loolu moom niñ ko gisee sax daanaka moo tax ñu taxawal mouvement bi ndax gis nañ ne léegi maanaam valeur yi dafa yàqu ndax gis nañ ne nit ñi léegi alal jaral na leen lu ne. te damaa defe ne ni bu fekkonte nii la fi maam yi tëraloon toppoon nañ ci maanaam situation yëpp mën nañ cee bañ a nekk waaye léegi daanaka nit ñi alal rek la ñu def ci seen bopp bi tey it nun ko mën a amee maanaam baax na mun ñoo tax nag ñu taxawal mouvement bi maanaam pour le développement et social sàmm li ñu bokk sàmm li ñu bokk bi mooy valeur yooyu nga xamante ni dafa disparaître muy maanaam comme noonu nit ñi nga xam ne du ko neex rek lay wuti xaalis léegi xoolatul yàlla xoolatul lenn ñun ñu taxaw ngir taxaw yooyu daal ba jikko yooyu yëpp daal jóge fi li fi maam yi tabaxoon indi ko fi tamit lu baax ñu indiwaat ko ba pare continuer sàmm ko. waaw mooy loolu ndax xam nga Sénégal moom dafa mel ni fi mu ne liñ naan oto bu càng xam nga oto bu càngee du dem du dikk day baaje nii rek waaye bu baajee du avancé après du arrière loolu nag li ko waral mooy li ma la wax rek maanaam valeur yi maanaam moo am crise nit ñi amatuñu benn valeur. ndax xam nga ne nii bu ñu demee ba nga xamante ni ñu jiite ñooñu la ñuy accuser naan ñoo luubal lii ñoo luubal lii loolu kon war nañu seetaan ñi ñuy jiite moo tax ñun ñu jóg taxawal mouvement bi ngir bëgg a tànn ñoo xamante ni nii ñu set la ñuy doon set loxo set xalaat set lépp doon ñoo xamante ni am na yoo xamante ni nii bu ñu leen dénkee réew mi danañ ko danañ ko jomb def daal waaye wax dëgg yàlla jamono ji ñu jamono moom réew mi am na ay crise de valeur daal réew mi moom normalement am na ay crise de valeur te it muy ci muy ci muy ci fànn yëpp rek xaj na daa am foo xamante ni nii tane na fa waaye crise de valeur yi moom moom foo dem man nga faa fekk ndax am na barab yoo xamante ni daanañ fa yaakaar bañ a yaakaar yu mel noonu waaye léegi yooyu tàbbi na fa daanaka léegi nit ñi alal rek la ñuy xool xoolatuñ leneen te it wax dëgg yàlla doxin woowu baaxut baaxut ci réew baaxut ci askan baaxut ci baaxut ci dara daal moo tax war na nañoo ñu jóg ñun pour tàllal loxo Sénégal gépp lii ñu taxawal nii nag muy mouvement bi defuñu ko pour ma Samba defuñu ko pour ma Demba defuñu ko it ngir politique dañ koo defar ngir li nga xamante ni moo fi nekkoon bu njëkk te maam yi valoriser woon ko ñu ñëwaat indiwaat yooyu noonu seet ñoo xamante ni nii ñu ñu seet lañ ñu man koo ànd ak ñoom dox ko ñëpp nag lañ ci taalal loxo Sénégal yëpp képp koo xamante ni Sénégal moo la intéressé maanaam askanu Sénégal intéressé la jigéen ñi intéressé la sëriñ ñi daara yi intéressé la parce que gis nañ ne Sénégal dañoo ginnaawal jigéen ñi parce que jigéen ñi ñoo am solo lañ ci wàllu développement parce que jigéen joo gis ma nga yor benn palaat def ca ñaari màng wala ñaari màdd góorgóorlu kooku nag boo ko appuyé tuuti rek mu dem sëriñ daara yaa ngi nii sonn bay bëgg a dee ñu ngi da daara boo xam ne day day yor lu ma téeméeri dong wala ñaar téeméeri dong amul kenn ku koy dimbali ci loolu moo leen moo leen di faj bu ñu feebaree moo leen di jox ñu lekk moo leen di xa moo leen di yar di leen def lépp te loolu lépp état la war parce que état ni mu taxawoo école bi noonu la war a taxawoo daara ji parce que ñaari seen type de sénégalais amut benn type de ñi ci daara ñi ci école bi ni ñu taxawee école bi noonu la ñu war nañoo mën a tabax ay ay daara comme ñu tabax école jël ay jàngalekat yi sëriñ daara di leen fay comme ni ñuy jàngale ni ñuy fayee ni ñuy fayee école bi toppatoo leen parce que ñoo yem ñoo ñëpp ay Sénégal lañ ñee li ñuy participer ci ñoo ñi ñi sax ñoo lépp lépp ay ay ay manque de crise la yoo xamante ni war nañ ko seetaat taxawaat ko jamono ji ginnaaw dañoo nekk ci jamono yi politique maanaam ñëpp danañ jóg kenn ku ne wax di def nangam waaye ñun lii ñu taxawal ñun dañuy xool ñoo xamante ne nii ñu mën a ñu ñu ñu ñu am valeur lañ ci wàllu ci fànn gépp bu ko defee ñu mën a ànd ak ñoom li nga xamante ne nii moom dañuy ñuy joytu muy crise de valeur yi ñu mën ci ay saafara ñëpp nag lañ tàllal loxo ma Samba ak ma Demba ñëpp lañ tàllal loxo waaw loolu moom xam nga ne nii moom vraiment nguur gi dafa war balaa balaa balaa nawet mais gis nañ ne jiw yi ñu koy joxe gis nañ ne day am ay tardement parce que baykat yu bëree bëri dañuy dañuy dañuy débrouiller am seen i jiwu pour bay ko nga xam ne balaa état bi jiwam di ñëw dana fekk ñoom ñu ji ñuy ji yooyu yëpp nag état bi daf ko war a xoolaat ni mu koy doxalewaatee xool maanaam matériels yi di indi matériels yu doy yu baax xool baykat yi jox leen ko jàpp leen bu baax baax daal ndaxte mënoo wax développement te woo ko bay woo ko sàmm woo ko napp te vraiment gis nañ ne baykat yi sonn nañ sonn koo xamante ni nii ah man naa ne lu ci bëree bëri état état état waroon na cee du xom xëy buñ ci dugaloon seen loxo ni mu demee noonu mën naa bañ a demee noonu di leen ñaax rek ñu toppatoo baykat yi bu baax a baax daal di leen jox matériel bu baax di leen ko teel a jox di leen jox diw parce ay jàmbaar lañ tey wax dëgg yàlla li fi am ci koom-koom akus néew ñoom ñoo ko fi indi kon wara na leen taxaw bu baax a baax waa loolu moom maanaam nit ku ne la muy def moom moo ko war a moo ko war a gise daal waruta bàyyi keneen ñëw di ko dirigé waruñoo bàyyi état di ñëw di dirigé ay daara ñoom ñoo war a dirigé daara yi bu ko defee état ci boppam ñëw dimbale leen nam leen dimbale day ñëw fekk leen fi ñu nekk mu laaj leen seen tawat li nga xamante noonu lañ mën a doxale seen daara ñu ne ah ñun kat nii nii tënku ko ci ay principe jox ko état jàppale leen ci mais état moom warul mën a ñëw dirige ay daara parce que xamul ci daara dara état li mu xam sax war ko dirige dirige ko ni mu ko war a dirige kon na bàyyi sëriñ daara yi da leen war a jàppale parce que ay citoyen lañ te ci réew mi lañ bokk waaye bu leen di jàppale bu mu leen forcer di leen imposer ne bàyyi seen teeyu bakkan mu ñëw waxtaan ak ñoom ñu wax ko jafe-jafe yu ñu am ci daara wax ko it solution yi nga xamante ne nii loolu la ñuy def pour daara yi jëm kanam bu ko defee accompagner leen moom da leen di accompagner rek mais du nekk ne da leen di décider naa leen fii ngeen di jaar wala nangam sangam ba ci mbirum yalwaan mi sax ni mu ko doxalee du noonu parce que mbirum yalwaan nit ki boo ko bàyyi yalwaan ba pare te te ko ay conditions yoo xamante ne mën tax mu bàyyi yalwaan ku yor téeméeri dong di leen dundal kenn jàppale wu la ci mais kooku il faut nga seet ay solution loolu solution la du caagante ni lu baaxul la mais solution la pour nga mën a satisfaire maanaam li nekk maanaam loolu la daara moom toujours dafa war a dafa war a nekk ci boppam waaye nag soxla na ndimbal état it bu koy dimbale waruta ñëw di ko conditionné dafa war a ñëw dimbale ko ci ay principe am yi nga xamante ni moom bëgg na ko ak ni daaram di doxe mu tënk ko ne ko nii kër laa bëgg sama daara doxe ni pourtant moom lam ca man mu def ko de parce que loolu da ko war parce que daara ji ki ko jiite Sénégalais la citoyen la